buru sampai doomu ada doo sampai sa borom tax na ñu ngi sant cant koo xam ne fu mu tàmbalee waaye am fu mu yem am borom fayal ñi ñëpp cant gi nañ ko daan waxe tàmbalee ko ci ñi bokkal sëriñ bi ñu sëñ Mooru ñu bokkal ñu bokkal ak xaar yal eh, na sama borom fay yëpp moom mi di sëñ Jibli Ndong doomi sëñ Aliou la ci Ndakaaru bër dëkk bi la fi ñëw ne fii la fas yéene jullee ànd ak njabootam mu ngi jot li nu yëpp sëñ Aliou ci njaboot gi yëpp sëñ Jibli ñu lay fay te dina te gën am yaakaar si yow itam comme nii nga ko fekk màkkaan bi noppee mu yaakaar naa ne bu noppee day gën a ñu ngi lay sargal te di la dalal ak jàmm te di la bokkoo te di la def rakk itam am ne dëkk bi suñu dëkku maam la ñun ak yow rek ñoo ci nag képp yëpp ndokk nag bi nga xam ne dundal ko yàlla na gën a jëm kanam bu ko defee bis ñun ñëpp ñu fàttale ko xam li nga xam ne moo waral bis bi sunu maam Adama mi nga xam ne sunu maam Ibrahima mi nga xam ne suñu borom moo ko sàkk boole ko ñi ñu sopp boole ko ci yónnent yi boole ko ci ñi jox ay téere bis bi mu ngi jaar ci moom ak doomam ak soxnaam gént guddi suñu borom ne ko nanga rey sa doom yaa bunayya inni araa fil manaami annii asbahunka fanzur maazaa taraa gis naa sama nelaw naa ñu ne naa la rendi doom ji ne ko ifal maa tu'mar satajidunii inshaa Allah mina saabiriin danaa bokk ci yi nga xam ne danañu loolu buñ ko bàyyee xel ñun sunu borom du ñu toj lenn mu diis. njaboot gi buñ bàyyee xel tontu loolu xam ne moom la maam Ismaayil tontu woon tontu woon maam Ibrahima dara dootul di si ñoom dama la bëgg a rendi nga nangu ko sàppal sedd ci guy nga bokk ci ñu muñ loolu dara moom kon ñun ñëpp ñu gën ci borom bi wàkkirlu ci moom fonk ko te topp ko def li ñu xam ne kenn ku ne dee ci xam ne yaakaar yow rek la yow ma qiyaamati faqan yaakaar ne yow rek la suñu borom bi da ngay wéet ak moom lépp loo daan jëf ak loo daan wax mu ngi loolu lu mat a bàyyi xel te du jax si kenn amul kenn kuy bokk ak bàmmeel waajuram du ndeyam du bàyyam du sëñ na lii sant waajur yi sant ko sëriñ bi moom lañ sant dong bu nekk te ko am fi kàddu ak juróom ñetti togg nañ la jëf di war sa baay moo la di war sa rey moo la di war sa kilifa moo la ñu xam loolu te fonk ko te jëfandikoo ko ñuy ñëw ci jàkk yi te rafetal suñ diggante ak njaboot gi yëpp rawat na waajur yi sunu borom bi ñu digalee ñu jaamu ko tracé ñaari waajur na ci teg war nañ ko jaamu sellal te fonk waajur yi kuñ dajee li mu toll ci waajur nañ ko def ni waajur ndax yonent bi li ñu sant kat xeetu bi duñ denc aw yiw mukk mukk mukk mukk ndaw yi ñu ngi rek mag ñi mag ñi yërëm gune yi kon ndaw yi nañu rek mag ñi bu baax mag ñi nañu yërëm gune bu baax koo tasee mu toll sa doom rek def ko doom ku toll sa morom def ko ni sa kër ku toll sa waajur def ko ni sa waajur ak foo mën a nekk Sëriñ Tuubaa nee na gi ku jël yar bi jël na ñëpp ku bàyyi yar bi yóbbu la dara kon yar ak jom ak ngor loolu la sëriñ bi santaan loolu la yàlla santaan loolu la yàlla santaan nañ ci góorgóorlu luñ mag am kersa am peggéen tey muñ lante ci lépp yonent yàlla Moussa ba ko Firawna Firawna bu ndoxal ba métti ba métti ko suñu borom wax mooy nañ di mën a ko yàlla te nañ dimbale ko yàlla defal waaye bañ muñ a xol set alxuraan li ci romaraw santaane ci muñ bari na lool yaa ayyuhaa llaziina aamanuu isbiruu wa saabiruu wa raabituu wattaqu llaaha la'allakum tuflihuun muñ te gën a muñ te takkaayu te ragal yàlla kon xëy na danañ te am taxit waraab yi soo nag mooy takkaayu liggéey ak liggéey boo xam ne yàlla gërëm na ko rek loo ca mën nga def ko ci bu nangoo jaamoon yàlla nangoo liggéey danga am sutura ci àdduna danga am sutura àllaaxira kon ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla bu baax ak liggéey ak wattale ko tooñ ak fonk mag ñi te yéenaante jàmm te di ko wutoonte loo xam ne ku la ko wax bu la neex bu ko wax kenn loo xam ne ku la ko def du la neex du ko def kenn te sëñ bi ñu ngoy ci moom bu baax dégg ndigal la na nit ñi muy xamoon li nekk ci moom duñ daw sàkku ji ko humpulee rek lañ ko bàyyi di sàkku ji leneen li ne moom nag mooy yor ak teggin dégg ndigal bàyyi fen rek loolu moo nekk sëñ nango jam yalla nango liggéey ànd ak yar ànd ak ngor ànd ak teggi yàlla ñu saa borom doole dimbali nawet bii ñuy séenu yàlla ci yegg ak jàmm te sa borom de tey ci tawal bu baax may ñu ndox bu sepp ndox bu leer ndox bu am barke te daj fépp nag ñepp xam ne gerte rek du jiw dem jiw mo mën am rek baax boko ko rek bu baax nga jël jiw mo mën am baax moo xam gerte la wala dugub la wala mboq la wala bànqaas yépp loo ci ji rek bu ñoree am njëriñ dañuy jàmbatal suñu borom suñu bopp buñ ko jàmbatal doomu aadama ndax tey doomu aadama boo xam ne da koy jàmbatal ko sa bopp njël li nga am yëpp yëg ko daf koy jël rek bu la wax def dama tàmbalee te jël sëriñ dagg li nga am yëg ko daf koy téye kon nañ suñu borom di ñaan te di ko jaamu tey ñëw ci jàkk ji fukki at ak juróom-ñett ku ko am togg nañ la jëf wala nga am kaari biir togg nañ la jëf wala nga gént togg nañ la jëf booy jigéen boo gisee mbër togg nañ la jëf te wattale ko téléphone yi da ci du dugal lu baax dee day bett jël sa téléphone def ci ay caay caay di ko ci xool bu la dee bettee ku ne gis ku gis sa téléphone gis lañ sa def mu ñàkk yaakaar ci yow téléphone bi ci bëgg lu baax man nga ko ci am man ko man nga ci jaamu yàlla bu baax mot say farata yëpp bu fekkee da nga war doon ndaw waroon a jàng laxdari yi a jàng tasawuru munoo koy jàng lam la digal xamoo ci lu bari def na ko ci sa téléphone mu xamal la li ngay sagoo farata xamal la fi ngay fase fi ngay yéene xamal la lan mooy farata ci cangaay bëriwul ñeenti farata ñeent ñeent ñeent rek la nga xamal la ni ngay jàppee ak fa ngay yéene sa jàpp mooy koy ragg sa kanam nga xam farata yépp xamal la ni ngay julee xam na la ca doon farata xam na ca doon sunna ngay roy sa ilimaan te ko jëkk a def dara ba ca asalaamualeykum ja di farata ak ak jotaay bi nga ci ngay wax ne asalaamualeykum yooyu yëpp ngeen ko defloo ci téléphone am ko Cheikh Abdourahmane Mbacke def na ci téere yu bari sëñ Abdou Niass def na ci téere yu bari ku ci jox signal yi moom la ci ci say farata te xam say farata te jëfandikoo ko farata la ci doomu adama bu nekk looy jëf na nga xam àq ja doo koy jëf bu ko defee mën nga saa amee jëg ngëneelu suñu borom yam nañu yàlla xiir ci boppam bu baax bis bi teewee nañ ko ren yam nañ ko teewee yeneen i at yu bare bare bare bare bare bare ànd ak wér bu kenn maag suñu woy daw nii yàlla suñu borom gërëm ñëpp woy dawat yi yàlla suñu borom saafara ñëpp wéy aajo yi sunu borom fajal ñu aajo yëpp ci saahir ak ci baatin ñi nga xam ne ñu ngi financé ci bis bi di joxe seeni i alal di joxe seen i koppar di joxe seen i gàtt te yàlla rek tax lan leen yàlla yàlla nañ ko gën di man yoon ak bis bi engrais yàlla ci ñëpp jot ci barke Yonent bi ñi nga xam ne ñoo jiitu àll bar sax foofee ñu nag yàlla na leen gënal fii yi nga xam ne fi la bàyyi ko. yàlla dañ leen yéex a fekk fekk leen ak janna te bokk ak ñoom di lay saabil walaay xaabil suñu borom man na ko yàlla ko suñu borom def ñi tawat yàlla saa borom wéral leen delloo si leen ci mbooloo bi sëñ Modou Mountakha Serigne Bassirou Anta ak mboolem xalifa général yi yëpp yàlla doon leen wér doon leen kàttan li yéene njaboot yi yàlla defal ñu ko ci am na bi ñu nekk ak alaxira bi ñu jëm réew yi nga xam ne moom lañ am ñun ñëpp bokk ko yàlla saa defaral ñu ko ba mu jekk yàlla saa defaral ñu ko ba mu jekk yàlla saa borom defaral ñu ko ba mu jekk yegg seen jàmm te ñëpp jëriñoo ci barke yonent bi barke Sëriñ Tuubaa ah ba ñu dem jublu ci loj gi rek ndox mi lañ xamuloon fu mu toll moo tax gàtt bi ñuy ñëwoon ba fii ci buntu jamaa ji dañ daan ànd ba ci kër ga. daa di loj ñëpp tasaaroo ndax imaam moom ku ko jàkka ren gi amoo ren amoo advance ñu génn rek teewee ko rek ñëpp mën a dellu ci seen yi te ngeen baal ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu